jëf mbokk internet yi ñuy topp ci Medina TV ci Sénégal waaye ci àdduna wërngal këpp ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi ziar leen ñaanal leen jaama bu baax a baax di ko sàkku ci yéen Medina TV di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen di ànd ak moom ngir lépp loo xam ne actualité la ci réew mi ak ci bitim réew ngeen mën koo am à temps réel ginnaaw bi ñu leen nuyoo mbokk yi kon dañuy félicité waat bu baax a baax Alima Alima nag di actrice bi nga xamante ne kon miin ngeen ko bu baax a baax ci saison 1 ak 2 bu li nga xamante ne moom mooy famille sénégalaise ginnaaw xibaar bi nga xamante ne kon jotoon nañ ko ci ñenn suñu ay naataangoo ñu fësal ne moom Alima moomee Mario Mbaye da koy jël soxna ni ki tey mu mel nekkoon mariage bi nga xamante ne ñu ngi ko doon wax am na waaye ndax Mario Mbaye moom moo ko takk am loolee laaj la boo xamante ne rek lëndëm na ci bopp sénégalais yëpp ginnaaw bi ñu ko gisee kon ñu daal di publier rek nataal yi fësal ne moom moomee Alima Kon doon nañ ko takk ni ki tey gis nañ sax ak vidéo boo xamante kon ma ngi cay jaayu naan madame Mbaye waaye ban madame Mbaye la en tout cas rek yokku vidéo bi nga xamante ne kon gis nañ ko muy circuler moom ci boppam muy wax ne madame Mbaye waaye ba tey rek ñu bëri rek ci ñenn ñi nga xamante kon ay jege ñaale Mario Ndiaye Marion Mbaye lañu kon weddi nañ takk boobee ne même bu fekkee takk am na kon keneen moo ko takk waaye du Mario en tout cas ñu ngi koy félicité bu baax a baax di ko ñaanal kon union bi nga xamante dugg na ci mu nekk kon sëy bu barkeel yàlla suñu borom may ko ci njaboot gu barkeel euh, lépp loo xamante itam bëgg na ko ci sëy bi rek suñu borom daal di koy defal ci fàttali nag ñu ngi doon wax digganteem ak Mario ay bis yi la weesu ginnaaw kon bañ xam leen ne kon oto ak famille sénégalaise euh, moom moo tax gisuñu ko ci ginaaw ba mu ko interdire rek mu daal di feeñ ci lépp li nga xamante ne rek écran la mu mel ne daan kon euh, mariage bi am na lënt lant ndax ba tey ji ñuy waxee nii gisuñu kenn koo xamante ne rek wax nañ ne moom mooy borom këram waaye rek ca initial yi nga xamante ne kon mooy décoration ba def nañ ko ca de miss de miss de mademoiselle à euh, madame rek lañ ca def amuñu fenn foo xamante ne kon yokk nañ ko ci ci ci ci ci image yooyee buy fësal ne kon mooy borom këram moom day wéy di topp xibaar bi leneen loo xamante ne amaat nañ ko ci ñu ñëw ci ak yéen ci nu mu gën a yaatu d'ici là wéy leen di topp Médina TV partage abonné laay koy jërë ngeen jëf. <laughs>